mi di xalifab Cheikh Mouhamadou Moustapha tey jii fi la yendu waroon na tew fii biñ demee ba caalee bi agsi mu yebal sëñ Abdourahman ne ko dem leen ngeen teewal ma ko ñu yëkkati rek ay kàddu yu gàtt tey ziar sunu wayjur di sëriñ Basiru di jaarale nuyoo bi ci loxoom di ziar itam sëriñ Moustapha ak mbooleem seen sëñ baara di nuyu tey sargal ñi nga xam ne ñoo fi teewal président de la di leen jéglu rek ci ñàkk lim bi ndax xataay jataay bi waaye ñu ngi leen ñu bàyyi leen jox cër bi leen nag dañ koy def ci turu njabootu Cheikh Mamadou Moustapha gépp ndax Cheikh Mamadou Moustapha ak Cheikh Mouhamadou Lamine dañoo bokk lépp bu ñu nee dañoo bokk lépp nag la ma ci jublu mooy dañoo bokk Serigne Touba ndax Serigne mooy lépp wante Serigne Touba dafa wax ne li fi nekk day day jaay képp ku am njëg ma jox na ci kamt lay kattan na nga jënd te soxna Aminta Lo dafa jënd kenn ku ne xam na ni nga xam ne noonu la soxna Aminta génne àdduna loolu di pas-pas bu mat sëkk. loolu di taalibe gu mat sëkk loolu itam may njabootam gi li nga xamante ne bii am nañu ko gënu àdduna googee nag dajee ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara nekk tu batax ba àll joojee dal ci kawam Serigne tubaa suñu ku ci moom ba léppam di Serigne Touba daram gënul Serigne Touba mu ñàkk Cheikh Mouhamadou Moustapha doonoon léppam ba kenn ñemewu ko taxawu ko ci zaahir taxawu ko ci baatin yàgg ngeen a dégg ñu naan sëñ Modou Moustapha di mos a jëfandikoo baatin loolee la ko waral lépp lu mu waroon def Cheikh moom leen Baara dana taxaw dox diggam ak loolee. ba nga xamee ne sëriñ Baara génn na àdduna sëriñ Modou Moustapha yar njaboot gi mu di njëkk a magoon sëriñ Modou Baara ak sëriñ Aziz jàngal leen samp leen ñu nekk noonu noonu ak njabootu Cheikh Mamadou Moustapha nekk ni wu rafet kër gi di genn. ba sunu boroom tey jii mu des ci diggante Cheikh Sidi Makhtar Mbacké ak Serigne Ahmadou Makhtar Mbacké Serigne Ahma jël mboolem njaboot dara ko doon jëbal ko Cheikh Sidi Makhtar loolu mu di ci sant yàlla ndax ndimbalu suñu borom la ndax boo ko yàlla mayee mu teg tànkam foog ay magam tegoon loola kon dajaa war a sant yàlla wante itam muy dellu di santaat suñu borom ci bi nga xamante ne bii boole na ko ak kilifa goo xam ne kilifa gu mag kilifa la ndax Cheikh Sidi Maxtaar kenn ku ne gis na ni nga xam ne ni la taxawoo kër Cheikh Mamadou Lamine mu di kër sëñ Baara yi muy nit ñu yóbbu Makka muy ni mu uufe njaboot gi muy ni nga xam ne noonu la dellusee jëmmi sëñ Baara mi nga xam ne bu fi jógee léegi ëpp na juróom-ñaar fukki ba tey jii day mel ne sëñ Baara barki dem lu fi jógee te yamaluñu ko foofu ndax ci bi biir Daaru Xuddoos lépp lu muy jëf gu ma nga ko fay jëf. ndax am na ci lool man seer laa ci en 2007 jumaa yi Taïf jee Cheikh Abdou fata doon liggéey def na ci loo xamante ne bii jégg na dayoo ci ab riyaay ba keroog Cheikh Abdou fata man la yónni ne ma demal ci sëñ ba nga santal ma ko bi ma dikkee di ko jot li can sëñ Abdou dana ma ne boo demee nee ko ni ma yilifu fii laa yilif foofa kon loolee mu fay def man la koy defal kon mi ngi jëf ci biir kër gi jël kër Sëriñ yooyu teg ko ci loxo Ahmadou Mokhtar mu koy tabaxal jóg ko taxawul kon Cheikh Sidi Mokhtar loolu nga xam ne mi ngi koy def di am lu mu dëlloo siwaat ndax bu ñu waxee personnalité kilifa diine weesu wut ñu ne jaamukatu yàlla la te kenn ku ne xam ne moom jaamukatu yàlla la soo nga wut dara ci àdduna ba lépp lu mu jël da koy delloowaat sunu boroom téye yoon wi ba ñëpp wegg yoon wi lu pression bari bari bari lu jamono yi jaxasoo jaxasoo mu jël tànkam teg ko foo ko Sëriñ tegoon te ab kaamilam nekk ci daram ak kurusam ba kenn du ko yeb te lépp mu bëgg suñu borom dana ko defal kon kooku ku muy sa kilifa da ngay sant yàlla te di ko ñaanal mu gudd fan loolu tam moo tax njabootu Cheikh Maodo Moustapha si njiital Sëriñ Ahmadou Makhtar Sëriñ Cheikh Madina Sëriñ Abdou Fatah ak sëñ Abdourahmane mii lañ fi toogal ñu ngi feddali seen i laxasaay di dellu di jëmbali seen bopp di joxe seen bopp ak mboolem njaboot bi di ko xamal ne ko day lu mu wax lañu wax lu mu waxut waxuñu ko fu mu joxeñ rek ñoo foofee la ñuy xool te fasu yéene mu di leen seen ci loo xamante ne bii gërëmu ko wala diglewu ko jël nañ seen lépp joxaat ko ko di ko ñaanal suñu borom guddal aw fanam di ko ñaanal Serigne Touba nangu ab liggéeyam di ko ñaanal mu jàgg fi lool ba lépp lu mu yéene mu àggale ko wasalaamualeykum wa a taala wa barakatu ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen baalu àq jërë ngeen jëf